aousubillahi min sheytaan irajim bismillahi rahmaanirahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbi zawi ridwan wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di nuyu baax di leen ziare di jiital ñu nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tànd ko wér di nuyu mbooleem Majmahun Nurayni ak di nuyu mbooleem ñu ñuy siiwur di ànd ak ñun ci émission Dialibatoul Bourour seen mbokkum taalibe di ko ànd ak yéen muy Zaid Ba kon émission yi jot a jàll yëpp ñu ngi woon ci njëriñal xaside yi ba jot nañ ci indi ñaari jàngale xam naa kon tey mooy doon ñett ñetteelu tomb bi muy dernier bi ñu ñaan suñ borom defal ñu ci tawfeex defal ñu ci dégg ak topp comme niñ ko waxee woon rek xasida yi moom dafa doon liggéey bu mag boo xam ni mooy liggéeyub sëriñ bi gën a mag ci ab liggéeyam moo tax fonk gi ak euh, saytu gi ak gëstu gi ndax lañ ko war a toppatoowee murid yëpp ci war a bay seen waar loolu tax daanaka njàngale mi ñu jëme ko ci moom ñu njëkke ko ci moom kon émission bi passé ñi ngi yemoon ci li mool xaside yi maanaam euh, ponki xaside yi ñu tuddoon ci zikar ak jihaad ak julli ci yonent sallallahu alayhi ñaan tuub jéggalu tagg suñ tagg suñu boroom tagg yonent sallallahu alayhi kon tey dañuy ñëw ci indi tomb bi nga xam ni dañ ciy leeral xaside yi nga xam ni moom lañuy ñuy askanale sëriñ bi te bind ko te loolu tamit lu mat a xam la lu mat a bàyyi xel la waaye daanaka bari na waaye dinañ ci indi yenn rek buñ tàmbalee ci xasida kalaamun xadimun laa yumal samaahu tanazaan xawlin wa fi'lin wa niyat bi astafi min kulli daa'in wa nuuruhu dalilun li xalbi inda jahli wa xayrati fa yaa rabbi matixna bi siri xurufi wa nawir bi xalbi wa sam'i wa muqlati bu ko defee xasida googu bari na murid yi ñu ngi koy jàng waaye boo demee ci téere bu ñuy wax mujarabatu dayra bi da nga ko fekk nga xam ni téere boobu moo jiitu sëriñ bi ci zahir bokk na ci xasidak xinan laa yan fadu moo tàmbale ci allahu asalu xinan laa yenn fadu bi jaahi man sammaytuhu muhammadu moom daanaka dafa bari ay yàq ci wàllu naxu wàllu grammaire moo tax boo jàngee tuuti rek ci wàllu naxu da nga xam ni bari na yàq mooy gi muhammadu gim wax ni gim gim daanalee mooy bi jaahi man sammaytuhu muhammadu nga xam ni foofu mu taxawee mafulun bihi lay doon te mafulun bihi dañ naan la dañ koy rafaa bi dañ koy fatxa wala ñu nasab ko waaye maf'ulun bihi bu ñuy rafaa moom kenn mësu koo gis ci wàllu wàllu naxu bu ko defee yàq yooyu ci nekk moo lay waral ni kon moo lay xamal ne xasida gi sëriñ bi bind ko boo wa jàllee ci wayu njëkk yi tamit yàq yee ci nekk daanaka kenn xamul num day bokk na ci xasidak yaa rabbana yaa baasital arzaqi yaa faatiral mihaadi wa tibaaqi moom nag am na bayit yoo xam ni dafa xaw a nduroog waxinu sëriñ bi goo xam ni mi ngi ci biir xasida ga moo nekk fanta jaaru na wa neex ma jaaru yaa xayu yaa yaa xayumu yaa jabaaru wasalli fi leyli wa fi nahaari ala nabi mustafa al muxtaari wa ali wa sahbil abraari maa ko wéra laylu ala nahaari waaye teewul ku mën a bàyyi te dem ci geneen goo xam ni ci geneen xasida ndax am na xasida yoo xam te ni sëriñ bi def na ko te li ngay sàkku ci gii ma nga foofu bokk na ca Euh, xasidak allahu xayun samadun wa baaxin subhanahu zu kanafin wa waaxin moom sëriñ baara mu sëriñ tubaa moo ko bind daan na daan wax nañu tamit képp ko koy jàng ci jamonoy mbas suñ borom dana dana musal ci balaayu mooy man xaalaha fi zamanil wabaayi amanahu llahu minal balaayi bokk na ci xasidak yaa rabbana yaa innal wara li awliyaayika maan yashahu moom sëriñ baara radiallahu taala moo ko way bokk na ca xasida ak aaxiru zamaan bu dee aaxiru zamaan nag ñu bari amuñu ci ak dogu ci moom waaye nekkul ci benn diwaan ci diwaan yi sëriñ Abdul dajale woon bokk na ca xasida ak kindiirul alamin moom ku ñuy wax Sàmba Dukumaan Sekk moo ko way moom it euh, dañ koy askanale sëriñ bi te sëriñ bi wayu bokk na ci euh, yaarab bi najjinaa mina sheytaan moom nag ñu bari amuñu ci ak dogu waaye diwaan yi sëñ Abdul Ahad dajale woon moom doo ko ca fekk bokk na ca ahamun saxakun xalawun yesun moom it ñu bari dañoo jàpp ni xasida yiñ tënk yëpp yiñ ci tënk yëpp sëriñ bi moo ko way te euh, sëriñ bi genn xasida rek la ci la ci tënk moom la ci way mooy bi tàmbalee abal wujudu wal baqa dem xidam maal muxaalafati an alxan nadam bu ko defee kon buñ nee la xasida gi euh, sëriñ bi wayu ko liñ ci jublu mooy leeral rek waaye lu baax moom foo ko gis mën nga koo sàkkoo waaye eh, pour ñu xam ni eh, sëriñ bi moom daanaka léppam dafa doon ak leer te ak njuumte akuk yàq amu ci kon xasida goo gis rek mu am ak ay yàq wàllu naxu wala way yi dëng xeet yooyu noonu mat naa seetaat bu baax a baax boo xoolee xasida ak sóoratu sarxi moom it ñu bari dañuy yaakaar ne sëriñ bi moo ko def waaye defu ko am na xasida ak suratu sarxi goo xamante ni dañoo coqatee ay bayit ci xasida ak sëriñ bi dugal ko ci waaye am na xasida ak suratu sarxi boo xam ne moom euh, sëriñ bi moo ko def mooy dinañ dinañ dinañ ay leeral waaye boo xoolee bii gën a siiw te daanaka murid bari di ko jàng yaakaar naa moo tàmbalee xasida gi nga xam ne moom la tënk ci sóoratu sarxi nga xam ni moom moo gën a siiw ci murid bi ñu koy jàng ni dafa am ay yàq dinañ ko leeral ci biir waaye boo gisee sëriñ bi wax ni yàq yi xilaamiyal xata wa sahwa baaxin kafaanin ida wal lahwa sunu borom fegal na fegal na ma ak yàq ak um njumte te boo ñëwee ci xasida gi nga ñëw ci biir dafa am ay yàq yu naxu ak wàllu arud sëriñ bi daal di waxaat ni faratu ilal mawlal badixi wa xaadali bayaanan wa naxwan lil mazaya muwajjiha su ko defee ñu xool suratu sarxi gi nga xam ni dañoo jël euh, ayin gi ci inna ma al usri yusran an ni nafaytal jahla wa dalala wa xuttali risqa ma képp ku jàng nax wa xam ni ma al xalaala kenn du ko wax te xam nañ ni nekkul yàqukatu bindkat ndax ad dalaala ga ko jiitu moom la koy tollaleel nga nga nga nga nga nga jël xarfu siin gi mu wax ni suqni ilal xayraat yaa jalilu bi jaay xayr xayril xalqi wal jibrilu xam ni wal jibrilu kenn waru ko wax te it du yàqu kat waaye yaa jalilu goo ko jiitu moom la koy jéem a tollalil kon xam ku ne xam na ni xasida googu kon sëriñ bi bind ko waaye am na xasida ak sóoratu sarxi goo xam ne moom sëriñ bi moo ko bind ba pare tamit boo demee ba ci biir euh, way yi muy taysiru amriya ilallahi samat xaatabtuhu laysa lahu kufan ahad xawltu yaa rabbal wara yaa rabbana ba ci aslix liyal xayraatu nuura sarxi xuutal xiyaala kulliya bi sarxi dafa doon ay way yoo xamante ni ay way yu yu yu yu yu yu reewlu la yoo xam ni ku jàng tuuti rek xarut wala naxwu da nga xam ni lii du waxi sëriñ bi kon loolu tamit mel na ni taalibe yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax daanaka di xa di jéem a euh, moo tax ñii muul xasida yi ak ñi koy bind ñu ñu war a saytu lañ ñu ñu war a segg lañ ci balaa ñoo mool gën xasida wala balaa ñu koo bind ñu tas tasxiix ko pare comme ni ñuy def xadis yonent sallallahu alayhi wasallam nga xam ni dañuy xool xadis yi wér yi dajale ko ci ay ay téere yu mag a mag a mag xadis yi yu wérul li ñu saytu leen ba xam leen noonu lañ ko war a seggee ci xaside yi moo tax sëriñ alxaaji mbàkke def ci liggéey bu mag a mag mag bu ko defee xaside gu ne am na lu ko tax a jóg am na weer yu ca gën te mooy weer yu ko sëriñ bi taalif boo ko xamee xaside yi euh, tàgg yi nag li dale rajab ba tabaski ca mujj ga ca la ko daan def xasida yi julli tàmbalee weeru tamxarit ba ca jumaada saaniya loolu mooy mooy salaatu sitta bi madxi sitta taati ba damaati saay hadiyat yi min muharrami ila ghibbi jumaada li tutayibul ilah min rajabin ila intihazil xijja hadiyat yi kiltaahuma li xujja xëy na nga gis leneen comme sëriñ bi moom daanaka mbiram tënkuwul ci euh, dara bokk na ci xasid ak jazbul xulub comme mm, xasid ak la daa boole tagg ak julli ci yéen salaa salaam moom moom moom utaluñ ko benn weer am ak xasid ak ñaan yi nag lu ci mel ni toxfatul awwa ak matlabul fawzayni ak xasid ak sant mel ni jaawatu yooyu moom moom it jagleeluñ ko benn weer su ko defee xasid ak xasida am daax yi moom di ko waral moom dina di ko baril dina dina dina dina waral ay xéewal ak yi xaal bu dee xasiday salawaat yi di ko baril moom dina waral ak dëddu ak ak ku ko mën di boole tamit mooy di boole salawaat yi ak xasida yi am daax yi moo ci gën ni ñu xamee xasida gi lu ko tax a jóg benn nga xam koo xam ku xam xasida wax la ko wala nga gis sëriñ bi bind ko ci xasida ga wala nga jàng ko ba gis nu la def noo melutoon teewul xasida yépp day àggale ci yàlla sunu borom waaye gune am na yoon wam lay awale su ko defee am na xasida yoo xam ne sëriñ Abdou Khadir radiyallahu anhu moo ciy waxoon ay mbir lu ci mel ni xasida ak jaalibatu marahib nee na day joxe mbooloo te day tarbiya asmaa ahli badrin moom it day tarbiya nee na rabbi bi maes raxul tamit wax nañ ni day féete kaw ab noon ala inna ni usni ala xayri moom day alak am noonu bu ko defee kenn ku ne war na cee ragal suñu borom ba bañ koo jàngal kenn nooru daare ni sëriñ Saalif Mbàkke daan na wax nii day gë nit ci jaamu yàlla ak sopp yàlla matlabul fawzayni moom it noonu lay def nit te day joxe ay xéewal bokk na ci xas dëgg matlabul shifaay sëriñ bu Buso daan na wax ni jàngoro yëpp lay saafara ba ci ba ci ab dof sax mën na ko faj xam ne dañ koy jàng suba ak ngoon mawaahibu naafi' mooy bokk na ci xasida yi joxe xéewal ak sabon taq yi sabon taq yi abaabu kulli naari tajudu bi dirham wa dinaar yi moom it day joxe xéewal moom nag yan juróom-ñaar la ci sëñ bi jublu kenn ba léegi am na guute am na ñoo xam ne dañu juróom-ñaari laaye fatiha la ci la la ci jublu am na ñu dàq loolu bu ko defee jësbul xulub day moom it day dafa bokk ci xasida yi nga day yokk ak ngëm ak cofeel ci lu baax ni ki noonu mafaatixul bisri moom it boo koy jàng day far say day far nit ki day faral nit ki ay bàkkaaram ba mu mel ni liir bu yenent ci ni ko sëriñ Abdul Xaadir waxee noonu la xisnul abraar noonu lay aaree addu'a ul kabir tamit noonu la mel ala man alayya boo koy jàng yontu sallallahu alayhi day teg loo xam ci sa bopp moom mafaatixul bisri moom it mafaatixul jinaan moom it noonu lay yokkee wërsëg ak yi ko noonu tuxfatul awaa ak tawbatul dañuy fari bàkkaar di mbég di ubbi ci lu ci lu mën a doon di wiññi ay njàqare ak xasid ak astaxfirullah bii moo tàmbalee astaxfirullah al wa atub ilayhi min dawahirin wa min xuyub xasid ak jaawatu sëriñ bi daan xam ne ku ko mokkal ñu wala ñu suuraaleel ko duñ la laaj ci bàmmeel te faaw da nga texe ak xasid ak minal lawxil mahfuz nga xam ne boo demee ci minaxul miskiya cheikh mouhamadul wala ci irwaaw na dim cheikh mouhamadul lam joob moom dina nettali mm, li taxoon sëriñ bi bind ko mi minal lawxil mahfuz moom it ku ko mokkal duñ la laaj ci bàmmeel xasid ak minal xaqi jaal xaqu moom ku ko sëriñ bi daan nax ni ku ko xool texe xasidak allahu muhammadun gi tàmbalee ila siwaay bi shaqa i dahaba kula laxinin la ara man nahaba ku ko mokkal seytaane du la beewloo boo demee ci maj moo ba bi sëriñ Abdul Ahad dajale danga ko fekk sëriñ bi di ko fa wax na abdillahi moom it day musle ci lépp am na ñu koy takk moo xisnu abrar ak waxaani xafidun tanwiru sudur moom day neexal am xel si sindiidi day musle ci lu bari xasidak muslaay la wakaana xaqan day joxe ay xéewal moom sëriñ bi mi ngi ko waye woon gànnaar wala xadd karam naa mooy noonu la mel ci jeex nit kee xéewal ak wuññi ay njàqareem ci bu gaaw ak xasid ak fastajaaba lahum rabbuhum gi tàmbalee ci faraj bi jaayil Mustafa an ummati yaa muxrijan moom it day yokki ay xéewal di wuññi njàqare bu loolu jàllee buñ ñee xaside yi day joxe ay xéewal loo ci gis ci àdduna rek ci ay xéewal wala ay teranga danga koy danga koy sante yàlla te far te gën a farlu waaye loo ci gisul tamit ñu nii la da koy def xamal ni euh, sëriñ bi moo ko nammee noonu ci yow nga xam ni sëriñ bi sëriñ bi moom du jox ab taalibeem lu koy lor àdduna wala barzaq kon daanaka buñ ne la xasida sàngam day joxe nàngam nga nga jàng ko gisoo ko ci xamal ni lam war a def ci yow def na ko ci yow da koo jaarale ci weneen yoon kon loolu tamit taalibe yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax bu dee bindikati sëriñ moom bari woon nañ loolu Euh, sëriñ Omar Saw ak sëriñ Moussa Xalima Gueye ak sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana moom daan na bindal sëriñ bi sëriñ bi daan na ko yëkkatiloo xasida yi tamit subak teel bañ na ko sax am na bis boo xam ni moom sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana sëriñ bi bindoon na koon ay xasida muy yeex a pare sëriñ bi laaj ko mbind ma mu ni ko dama wànnin sëriñ bi ni ko jëlee sa loxo teg ko ci sa bët wi nii wànnin bàyyil taalibib jàmbur bi mu ko defee ci la wànneenu wi daal dem kon muy muy muy muy lu yéeme boo defee xasida yi da ngay gis yenn saa yi nga dem ci mool bi fekk fa baat yi yeneen mool yi euh, doo fa fekk baat yi muy muy wuteeg baat yi loolu day am ci xasida yi waaye loolu li koy waral ki koy bind ki koy toxal mën na koo yàq waaye léeg-léeg itam nga gis wuute goo xam ni li koy waral sëriñ bi moo ko soppi woon mel ni xasida wa samay samaytuha googu mm, woy bi nekk mooy ahmadunal muxtaaru nuuru naasi mawliduhu mu zaxdewul xanaasi bu njëkk xayru naasi lañ daan jàng ba ci kiimtaan gi feeñee ci la sëriñ bi eh, wax ni nañ koy nañuy jàng nuuru naasi nga xam ne yenn saa la moo ko soppi la ba tey daana wax ci wakkaana xaqan ni góor ñi nañuy jàng azab tafaaroon li siwaana kulla man lay sa yakunu muminan ñi di jàng azabta azhib li xayril muminina kulla man léeg-léeg nga gis wute goo xam ni la ko waral dug soppeem waaye day eh, ndigal goo xam ni day digle ñu baamu ko sëriñ bi mooy digle ñu baamu ko rek am ñuy bind bindaale ko comme azabta faron li sawaana kulla man laysa yakunu muminan yaza zaman azabta faron li sawaana kulla man laysa yakunu muxsinan yaza zaman azabta faron li sawaana kulla man laysa yakunu ba mu jeex am na euh, daanaka boo demee ci euh, wakaana xaqan bi nekk ci euh, alfulkul maskun benn rek moo ci ñëw waaye waa barsàq yi buñ ko daan jàng sëriñ bi daneen daan wax ñu koy baamu loolu tax kat yi biñ koy biñ koy bi bi ñuy bindaat xasee gi daat ko ci dolli am na soppi goo xam ni moo moo moo koy digle nga xam ni da koy jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mel ni bayit wi xaaza nabiyullahi nabiyullahi maa la yaalamu illa lazi la wa xalamu nee na yonent bi sallallahu moo ko digal ni ko soppi ko def ko nii xaaza rasulullahi maa lam yaalami illa lazi xaatabahu bi kalimi am na soppi goo xam ni li koy waral ndigal lu bàyyi ko ci yàlla lay doon muy loo xam ni da ko koo may te digalu ko mu bind ko nga xam ni bu agsee fa ko war a ca xasida ga da koy da koy bañ a andi ca tënk ba mel ni xasida ak ayasa minillaahu inda jéewali mi ngi mi ngi ko tënkee inna ibaadi laysa laka alim sultaan xaraful laam ak yaa andiwu ko ci way wi bi demee ba am taalibe uh, bu ko nettali maanaam benn tubaab bu doon waxtaan ak taalibe ni ko uh, di waxtaan ni ko ci waa ahlu badrin bi ñuy feeñu sëriñ bi moom fa ko fekkoon gis na leen après bi wax jooju siwee ci la sëriñ bi daal di doog a indi ñaari ñaari bayit yi muy lii xaada ahla badrinil usuda man zaxzaxal waashiya wal xasuda yaqudu lii xaysu akunu laaw tabshira laa ilaha illallah nga xam ni daanaka ñaari woy woy indi koon woon waaye biñ demee ba commencé waxtaani ahlu badri ni ñu fee ni mu feeñoo sëriñ bi ci la ko doog a indi bu ko defee lii mën nañ ko tudde ak soppi waaye ak yokk rek la mm, ndax daanaka dafa bari ci xasida yi loolu waaye du tee boo yëree xasida goo xam ni maanaam mool bi nga yor moo gën a wér daanaka danga koy téye ba keroog ngay gis beneen rek léeg-léeg nag da ngay da ngay jàng gis baat bo baatu tubaab maanaam ci xaside yi wala baatu wolof ngay bul bul yaakaar ni sëriñ bi indiwu ko sëriñ bi moo ko ci indi ndax am na xaside am na bayit woo xam ni da nga ciy gis jërëjëf ak merci muy rabbu sama wal ardi wal arsi laka saraftu jërëjëf wa merci daanaka lépp sëriñ bi moo ko moo ko moo ko tënkaale ci xaside yi kon loolu loolu tamit daanaka lu mat a lu mat a bàyyi xel la rawatina ci jàngkat yi ak bindkat yi nga xam ni daanaka xasida yi moom mel na ni ab euh, xam-xam la boo xamante ni boo ko boo ko dee ko dee topp mën nga cee jëlee xeeti xam-xam yu baree baree bare baree bari waaye ci ki koy seetantal la sëriñ bi nag ku fonkoon xasida la moo tax daanaka xasida kuy ab jullit la war nga koo fonk ndax xasida zikar la moom moom la alxuraan xoola ak akbaru loolu tax sëriñ bi euh, tegoon ko fu kawe daana ko bind di ko naan daana ko def ci am ndox di ko raayoo daana wax ni bu ñuy jàng xasida yi malaayika yëpp dañuy wàcc di ko déglu ak waa ahlu badrin ila bina isaarahum xufaada wastamaul awzaana wal alfaaza am na jàngkatam bu ñuy wax buuna bam faatoo daa sëriñ bi dafa génn dara ni yonent bi sallallahu moo ko ko jox ni nañ ko ko sàngi armeel yam jëm tamit Euh, bis ni tey dinañ big bég goo xam ne mosuñu koo bég kon loolu euh, képp ko képp kuy jàng xasida wala nga ci gëstu rek war ngaa xam ni ko sëriñ bi fonkee euh, am na bis tamit am na ñum joxoon gaalu xasida di leen ko suuloo fu sori jox leen ay mbalaan ak ak parfum nee leen bu ngeen demee ba sonn na ngeen jël xasida yi teg ko ci kaw mbalaan yi parfum ko te yéen na ngeen toog ci suuf kon nga xam ne xasida daa war a féete kaw lépp daana wax ni su ma noppee ci xasida na ci boroom xam-xam yi njëkk a jaar buñ ci noppee borom baat yu neex yi doog cee jaar daana wax ni léeg-léeg ma gis nit ci pays bu sori du ma xam lu ko fa yóbbu waaye bu ma seetee xam ni xasida yi la daana wax ni ku leen fonk boo faatoo dañuy sopp ko ay jëmm di la wéttali ci sa biir bàmmeel ba keroog bis pénc wax nañ ni warlu woon na képp ku mokkal xasida ak fi nii aw fas ak ñaar fukk ak juróom-ñett ak àjjana moom sëriñ bi am na fajar goo xam ni daa yeex génn loolu bi mu jullee ba sëlmal la wax ni boroom alfiyetum nu Malik moo ko ziar si woon nee na bi mu ko laajee lu waral ziar si lu waral ziar bi mu ni ko sa bayit bi moo ma yéem loolu muy xayru jamil alamina ahmadu xaddamahu alal baraya samadu moo ko yéem ngir boole gim boole maanaam laa ilaha illallah muhammad rasulullahi wax nañ ni bu daa bind bopp xalima bi da ko daan wiccax ca ca ca buntu ba buñ ko daan bind itam ci ay feggu yu kawe lañ ko daan def kon loolu ni sëriñ bi fonkee xasida yi loolu rek ab tegtal la ni kon ñun war nañoo fonk xasida yi baax bu ko defee xasida yi am nay xeet am na xeet yoo xam ni njëkk sëriñ bi la loolu te lu mat a xàmmee la mooy njëkk géej gi la ko wayoon mooy fukki at ak ñaar ba euh, mujj gi mooy assasine ba jëm jay sasin bokk na ci xasida yu alaaman ay sakawtu sindiidi am na yoo xam ni moo tàmbalee bi mu demee ci géej gi ba mu ñëwee muy juróom at yu manqué tuuti tàmbalee jay sasin ba kasasin xasida yooyu bokk na ci ala inna ni usni ala xayri munimi ak ala inna ni arju min alwaasiin xaqi li rabbin xafuurin xasida yooyu nag diggam ak boroomam la diggalul kenn mu koy toxal bari na ci yoo xam ni sax jénn na warta woon a jénn am na yoo xam ni nag daana ko jàngu mu ko daan nañ ko jàng mu koy dégg lu ci mel ni wala xad karam naa ak yaa xayra dayfin yaa zal busharaati yu mel noonu itam kenn terewu ko donte ci géej gi la ko way sëriñ Saalixu daan na wax ni wala xad karam naa buñ koy jàng da koy fàttali njaarim ak sëriñ bi am na yoo xam ni diggante kasasin ak bak sasin la ko way mooy ama shahid naa bi karamin la ko way yooyu yooyu euh, ba daanaka xasida yooyu bariwul bokk na ci ay rabbi yaa jumlatan li ko waral daanaka diggante boobu daanaka toog na dafay amul ak jot dafay amul jot boole mm, mujjantal baksasin itam bindu ci dara ginnaaw bi mu bindee xasida ak hamziya googu daanaka mujjantal baksasin bindu ci dara xasida ak hamziya googu moo tàmbalee allahu kaw nii surural muntaha shaa wala yojuli masa inshaa am na yoo xam ne diggante baksasin ba wamsasin la ko way bokk na ci muhaddamatul amdaax bi mu woyee gànnaar ak mafaatixul bisri bi mu woyee eh, ciyeen jorof ak nooru daarin bi mu woyee njaarim am na xaaj yoo xam ni eh, daanaka moom moom la ñuy tuddee xaaji mooy ñaar fukki at ak ñetti eh, daanaka yi nga xam ni moom mooy mooy ak mujjëm kon loolu tamit lu mat a xàmmee ci ci mbindum sëriñ bi la kon bu ñuy waxtaanee xasida yi naan xasida gii fii la ko wayee wala xasida gii nii lay def xasida gi li mooy njariñam loolu xam-xamu xasida yi la maanaam lu mat a xam ci xasida yi la ndax nit ki balaa nga jariñu ci mbir daanaka faaw nga am ci xam-xam mooy di alquran yoon saa sama ci xadis rek suñ borom ni balaa ngeen maa jaamu na ngeen ma xam kon xasida yi tamit mel na ni jariñu gi dëgg fan lay gën a amee mooy nga xam li nga yor bu baax a baax a baax a baax a loolu tax waxtaan yu njëkk yi ñu jëmee ko ci xasida yi ak ñi koy jàng ak ñi koy teewlu daanaka ñiy jàng xasida yi moom ñi teewlu xasida yi ñoo yam am na yëg yi yoo xam ni sax ki koy ki koy teewlu moo moo ko ëpp ci ki koy jàng waaw daanaka am na xeeti xam-xam yoo xam ne tamit mi ngi bàyyi ko ci njàngum xasida nga xam ni euh, ilham lay doon waaye loolu ci ki farlu dëgg dëgg dëgg dëgg lay ame kon loolu lañ lañ andi tey jii ci émission jaalibatul burul muy dernière émission ci njariñal xasida yi bu ko defee dinañ indiwaat yeneen émission yoo xam ni xeeti xam-xam lay doon moo xam jëm ci xam-xamu diine ak xew xew diine yi dinañ am tamit ay invitation incha allah ay borom xam-xam xam naa dinañ ko tàmbali incha allah ñu ngi jégalu bu baax ci kàddu gi ak ñàkk fasaaxe gi lépp lu ci leer rek suñ borom la lépp lu ci dëng rek xam leen ni ñun ñoo gàtt xam-xam wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh li salaati wa tasliimi